pour man ku ragal sa gëm yàlla des na. et puis on a vécu des difficultés même au niveau de l'université au niveau de l'école on a vécu des situations difficiles et terribles donc pour ñun mënatuñoo dund loo xam ne cest à que si jaalu ma ko yàlla bu ne woon groupe de milliers de personnes taxaw nañu te mu leer ma ne fële dama fa a jàll damay wax sama mbokk yi dañu préparé circuit bi parce que dinaa fa jàll ce que je dis reste entier le médicament est utilisé pour le traitement mais pour la prévention on ne peut aller vers la prévention tey bu ñu toogee ba doomu Sénégal te ce que je dis sur le plan scientifique dara li ma wax du ci deñ dara du ci deñ ñu koy tëkkaleeg ak condition ñu ñu màggee li ñuy liggéeyee Afrique ba Afrique jeex moi je pense que aujourd'hui